jërë ngeen jëf Macky Sall bu doon wata la ñu ne guddi yi ay feu arrière rek la amee l'observateur xëy bind ci xëtam mu njëkk ne Macky en feu de recul ubbil yéenekaay bi état d'urgence bi mu tegoon ci réew mi ñaar fukki fan ñett ci weeru mars ak woyofal yi mu ci yéen di boobee ba léegi moo tax journal bi wax li mu wax ne mesure yi njëkk na caa defi coppite fukki fan ak benn ci weeru mai démb it di ñeenti fan ci weeru juin mu defaat ca yeneen coppite yu jëm ci indi woyofal ci mesure yi gouvernement bi tegoon ngir xeex ak coronavirus mi nga xam ne ca njëlbeen ga tàmbali dem beeg dikk bi ñu doon aaye ci diggante raison ak morom ma léegi nangul nañu ko nit ñi journal Le Quotidien ñu dogal yu mujj yooyee gouvernement bi jël ba xamle ko démb dafa yegsi ci waxtoom ne fi ko askan wi gën a soxlaa foofee leen ko defalee dem beeg dikk bi demoon dikkaat na Sud Quotidien ñu li indi woyefal yeeg yolamali ci mesure lu ci mel ne ci wàllu transport interurbain urbain gi ak ci mbirum couvre-feu gi moo di Macky Sall dafa déglu askan wi ak nopp bu baax bi li askan wi doon ñaxtoo ko xultu fu nekk ci réew mi fan yi ca président Macky Sall fekk si defal leen li ñu bëgg soleil national ni ñu mbir yi ak ni mu taree woon dem sax ba noot askan wi état bu Sénégal xool na nam mën a woye fee mu defal ko nit ñi la teg lu ñu àttanul ñu tàmbali fippu nguur gi xam xel ne lii raam ca ñag ba jëm te bu fa yeggee du jur jàmm tax mu dellu gannaaw moo indi ubbiwaat restaurant yekk salle des sports yi ci dëkk bi ministre Seydou Gueye ne ci le quotidien ku ko jàppee noonee juum nga du ñaxtu yi askan wi doon ñaxtoo tax gouvernement bi doxalee ni mu doxalee docteur Cheikh Sadbou Sokhna ne ci l'observateur bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul état bi ni mu doxalee weesuwul bàyyi ñoog jàngoro ji toog di ñu seetaan ak moom Vox Populi ne ko bi lay waxati ko coronavirus bi la tëggal mbooye ngaan ci réew mi askan yu jëme askan wi kenn tanewu la ci ne mbooleem mesures yi gouvernement bi jëloon ci réew mi mesures yooyee daanaka aw tur rek a ca des la si ne kay nañu moom kay état bi ubbil na jàngoro ji yoon wu mën a jaar ba yaata yu mbéj nu mu ko neexee ci réew mi journal Source A bind ne état bi jëfi ragal ak jëfi ku matul lu mu doon rek la fi def ne jël ne dogalam askan wi sëkkatal ko teg ko paaka ci put mu dellu ca gannaaw yéenekaay bi tegal ñu ci ne état bi ñu am ci réew boo xam ne fu mu tàmbalee loxo ko pat pati ne bu doon wax nit ñi moo di toog leen seeni kër wax ji mooy leen seeni kër addu ci corona na ne nguurug naxaatekat la amal affaire moo waral ñu am fit wu toll ne taxaw ne maîtriser nañu coronavirus bi te dara du ci dëgg li am démb rek yéenekaay bi nañu doy na cib takk ne juróom-ñett fukki doomi aadama ak juróom-ñeent corona nañu ci réew mi ca ñoom fukk yaak juróom ay cas communautaire la ñu jàngalekat yi corona woon ci réew mi ba tax ñu tëjaat l'école yi waroon a tijji ñoo ngi toll ci fukki jàngalekat ak juróom ay leeral la yu nekk ci xët mu njëkku libération bàyyee ko ci Mohamed Moustapha Diagne porte-parole ministère éducation nationale Diagne ko wax ne jàngalekat yi corona corona bi ñu jugee ndakaaru ca la ñu leen ko wàll ak naan ca bés ba ca lañ leen defali test gis ne dañoo corona yaa ngi xaati gon loo xamul leneen lu ko jaaxal ci gis-gisam moom Mouhamed Moustapha Diagne nee na ci libération moo dañuy taxaw naan nañu leen noppal ci tëj gee gi ñooñee ñoo bëgg a tëjal tey école bi lu mat cinq ak quatre jàngalekat suuf soit ñu ci ne dëkk bi di Diofior nga xam ne bi coronavirus bi duggee ci réew mi ak léegi ñoom l'observateur ñu jeexalee fa ak la xew ci hôpital Youssou Mbargane Diop bu Tëngéej ubbil yéenekaay bi benn médecin la ñu fay tuumal ne moo fa violé benn malade bu toll ci fukki at ak juróom-ñaar